wa bi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatullahi summa alayhim li habimana xatab alislaam wal ihsana bi hurmati siddiqi wal faruqi judliya bil ikhlaasi wat tawfiiqi auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi toog seen télévision Bichri TV noo ngi leen nuyu bu baax di leen ziara noo ngi fii ci Mbàkke Kajoor ci kër sëñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Sidi Moxtaar moom Cheikh Mamadou Lamine Bara ñëw fekk ko muy màggal bisub maam bii ni ko maamam diglee taxdimuhu bi sunnati yaquduna lil janna mooy jàng alquran jàng xasaayit bernde taalibe yi ziare mu jël aw ñaqam di ci dimbale way néew ji doole delloo ci suñ borom ñu jokk bokk gi ci loola nekk soo ba léegi ñu ngi ko fekk nag war ñoo fàttali màggal gi cosaan li ak maamu ju baax Cheikh Mamadou Lamine Bara rawatina taxawaay boo juróom wa sëñ Sidi Mokhtar ñu ñaan suñu borom mu yokk seen i leer seen barke suñu xaar mi ginnaaw bi ñu leen la waaw ma fàttewul bisir yëpp ñu ngi lay sant bu baax a baax te di la ndokkeel ci bis bi doon taataan kàddu yi rek suñu xaar bis aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi a rahim alhamdulilahi allazi jaala alulama amana rasul wa xulafa alayhi salaatu wasalaam wartidaahum li sahaadati tawxiidi malaykati ardi wasama wa xarruhum bi nafi l aswa maa xayrihi bi xawlihi taala hal yastawi alladina yaxlamuun walladina laa yaxlamuun uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen waa mafatihul bisri ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbokk yi fi teew yëpp ak mbokki taalibe yëpp di leen sant di leen gërëm di ci tëj ci nuyoo yi siyaari Cheikh Mountakha da ci teg sëñ Ahmadul Mokhtar da ci teg Cheikh Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñ Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké di nuyu mbokk jullit yëpp di di nuyu mbokk taalibe yëpp tey jii na ngeen ñëw ci bis bu am solo bis boo xamante ni tey jii dama naan képp ko am ngërëm ci àddina ci bis bi nga ko amee ndax ngërëm li Serigne Touba ña ko doon liggéey di mag ñu baax ña ñu àndandoon doon liggéey te ñooñu ba ñuy liggéey moom Cheikh Mamadou Lamine feeñagut jamono biñ demee ba Cheikh Mamadou Lamine feeñ jamono doomam yi bari na lool waaye nag mu ni gan gii tey indaan na seen ngërëm kooku mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké moom nag moo gane Touba àddina ca fii jumaa ji nekk tey jii nga xam ni ba mu ganee àdduna sëriñ bi da koy leew ca kees ya di wër kees ya naan xat fakk kab la xat ba fat la fa durru wala wa nafu jaa nañ képp koo xamante ni si euh, jëngoon nañ la tey say jéng dagg na kon sëñ Baara mën nañ ni moo xettali adduna sépp moo xettali jullit yëpp moo xottali xettali euh, adduna bépp kon kooku euh, bu nu koy màggalal fii ci Mbacke Kajoor te mu wàcc fii ab liggéey te ab liggéeyam sëñ Tuubaa mottali woon ko fii ni ko demal Mbacke Kajoor bi mu fi ñëwee nekk sëñ Amar Fall ab diir bu gàtt sëriñ bi sancal ko mbakki Kajoor mu nekk fi di fi wétli ko eh, eh, baayam ba eh, kii baayam ba sëñ Cheikh Awa Balla ñu ñuy magam ci Balla mi nga xamante ji moom la duppee sëñ Sidi Mokhtar mu wétli ko ba mu miin sëñ borom Daaru Moxti jël ko yóbbu ko Daaru Mox Daaru Mannaan kon mu nekk fi nekk fi ba jege fi génn fi àddina kooku mooy Cheikh Mamadou Lamine moom la ñuy màggalal tey moom la ñuy defal bis bu tedd bi bis bi nag sëriñ bi sëñ Saaliw da koo delloowaat ca cosaan la ca gën ak àdduna ga la ko delloowaat ngir maam loolu la ci sëñ Tuubaa waxoon bëgg ñëpp jariñu ca kon ku fi teew ku nekk yàlla dana la jéggal say bàkkaar képp ku fi indi jàngoro jàngoro moom sëriñ baa nee na woon du dugg Mbàkke Kajoor te saafarawut waaw du dugg Mbàkke Kajoor saafarawut kon ku fi ñëw ku nekk maanaam lu mu mën di andi bu ko fasee ci xolam te xol ba sel lu mu bëgg dana ko am ndax ñi fi ñëw ñëpp boo laajee ñu ci ëpp yokk nañ màggal gu jot da ngay gën a yokk loolu xam nañ ci dara ñun ñi nga xamante ni si ñun ngeen fekk si tamit buñ leen ñemee dogul wala ñu ñemee ni da ngeen am nangam fi ñu ko teg mooy seen xol yu yi ak bëgg bu ñu bëgg Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké suuf si dama ko le bu la dara metti woon boo cofee def ci ndox day saafarawu kon kooku mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké maa ngi sant nag mbokk jullit yi fi teew yëpp di sant mbokk taalibe yëpp ndax ñëpp bàyyi na seen ittee ñëw ngir màggalal na bis bi jàppale na ci bis bi jël seen i ñaq ak seen alal ak seen doole yëpp def ko ci waaye na ngeen xam ne lu ci waaye def lu ne bu soobee seeni Touba suñu borom dana ko ful Serigne Touba dana ko ful Serigne Bara dana ko ful may gën a santati waa Bichri TV di ndax ñoom teleb Serigne Touba lañ si Serigne Touba dund Serigne Touba la dox guddi ak bëccëg moo waral ngeen ñëw fii ngir taataan si eh, lu baax rek te loolu ci la leen xam kon sëñ sëñ naa eh, sama wëlëre di sama xarit maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla nga am ngërëmal Serigne Touba yàlla nga am ngërëma Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké yàlla nga am ngërëma Cheikh Sidi Moukhtar xam nañ si itti ak si yéene ci kër sëñ Bara yàlla na la yàlla jàppale ak mboolem ñi fi teew ñëpp ku fi teew ñëpp yàlla na yàlla faj ajo yëpp ndax ñi fi ñëw ñëpp kenn ku ci wax mbirum àllaaxira amul kon xam nañ ni seen àllaaxira moom am nañ ca yaakaar ndax kóolute gi ñu am suñ Tuubaa ak kóolute gi ñu am suñ Baara kon nag dañuy ñaan rek suñu borom guddal fan yi yokk wërsëg bu baax Kajoor guy mbind ak kër na boo fa demee taw feex nga yaa ko dellu nu sant yàlla teg ca di sant Cheikh Satou Mame Balla ma wax ki ngay santaale mooy Serigne Sidi Muxtar Mbacke mooy doomi Cheikh Baara ki mat di fekki Serigne Cheikh ma teek a tedd am na diine mooy doomi Cheikh Baara ki la am diine ku dem fa Cheikh Mbacke mu yéene law yiw tegtal la yoonu jub nga daal di ca yow Cheikh Mbacke Balla maa ngi jóg wayaat la wane waat ndax ñëpp jóg jëfal la yaa ngi dundal. bëri sëriñ bi bàyyi Cheikh Baara moo la ñor te doo ci tàyyi Mbàkke Kajoor guy mbind ak kër nga na boo fa demee tawfeex nga yaa ko doonu sanc nga ak tànneef fa yoonu daaru ku fa siyaar tànneef ko doon muxtaaru yaa taamu nag tànneef te loo ca taamu yal na ko yàlla def ngëneel yu baamu wa bi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatullahi ثم عليهم ليعتيمانا خطاب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق